mais am ci benn ministre boo xam ne nag man dama jàpp ne dafa bokkul ak ñoom gouvernement muy Abdoul Karim Sall parce que boo bokkee ñu nit gouvernement dafa war am cohérent parce que bépp ministre boo xam ne Macky Sall da ko teg daf lay wax jikkoom parce que kenn ku ne xam ne coow lii bi mu amee yéen seede ngeen ko ak man jàkka yi jumaa yi mu séddu ko Aly Ngouille Ndiaye fexe na ba naxante kilifa yi ba dara amut. bi nga xamee ne tëj na coow li bari réew yi kenn mënul dem dëkk ak dëkk bi coow yu bare mu dégg ko gis ngeen ni mu def daf koo ubbi noonu la kilifa di def Karim Sall nag mu ne luwaa la yor moom su xasee yor luwaa day appliqué mu xëy rek ne bépp nit bu fi doon di jaay mbuus fii ci réew mi da koy lakk loolu nag waxtaan nañoo bind nañ ko lettre waxtaan nañoo moom bëgg ko woon solution parce que ñun loi duñ ko contre ñun dañuy respecter loi. parce que man ak Karim ak keneen ñoo yam ci loi ñun ñëpp loi mo nek suñ kaw waye nak bu fekke da nga tambali dara am ñu la wutal solution da ngay dem setti len nanguwul lolu ñu tambali waxtani ñu dégg ko ci dekk yëpp dégg ko Thiès dégg ko kaulak euh Kédougou dégg ko siganchor ko également Dakar gis ngeen yeen ak man ni ngeen ko gisandoo amul marché bu mu des di ramasser mbuus lolu nak nag tax ñun tay ñu wote conférence de presse ci moment bo

C'est que kese mon andi tay ñu def conférence de presse pour vraiment pour Karim Sall wax ak ñun ñu wutal solution. 5 milliards à <coughs> cinq milliards. ak gennawal mais kenn ko gis mom xamul luy milliard bu ko xamant du wax pour ko vous wax xam nañ ne sunu woyé ñu wutal ko solution. à part loolu duñ ko nangu mukk ci àddina mu toroxal commerçant yi moom di tedd duñ ko nangu ci àddina ñun duñ ko ne bàyyi loi bi mais mën nañ ko indi solution boo xam ne bii li muy wut dana ko am commerçant yi duñu am problème danañu recevoir danañ ko wutal solution solution bi mooy li ñu bëgg premièrement li nga xam ne recensé nañ ko douane la jaare am nañ fichier bi su leen neexee ñu recensé ko jël milliards yooyu delloo ko commerçant yi jël seen marché yóbbu ko dee lakk wala ñu di ko suul benn la plan B bi mooy ñu defal ñu benn délai boo xam ne réew mi du dootoo fi gis mbuus bu loolu amee ñun ñëpp ñu nekk ak moom di xeex mbuus yi kenn duutu fi indi mbuus kenn déedu ko dédouané loolu mooy plan bi solution beneen bi nga xam dañ ko wutale mën nañ ko wutale loo xam tam am nañu ay partenaire un peu partout ñoo xam ne dañuy jël mbuus yi indi ci machine yoo xam ne daf seerul dara dañ ko ci def rek mu seey moom daal suñu wooyee solution dana am suñu woowul nag continuer di jël mbuus yi moom <coughs> duñ ko nangu mukk ci àddina jaral nañu lu nekk